sooratul namli sa alquran am mooy yow moo am sooratul ñett laa war a doon ci ñoom de aw xam suñu jëf juróom wax ci sonaat juróom-ñeent fukk ak atal ci kaafir màcciyatul moom ko de màccale bismillahi façon wax sama ci ci suñu góor rahmaani ko daal xewal mi daal yëpp jaar mi daal ayni ko daal xewal mi daal jalaata taasiin taasiin laara laara maa ngi xam ne muraad yi sëñ moom misaal ko ci taasiin de araf ñi nga xam ne ñoo nekk ci bopp saari ay mboot lañu tamit ci téere bi ko di mënuñ ko fi laara muraad yi moo wér ci liñ ci wax waaye suñ ko tudd lañu danga ci saar wa yëpp ci tirim baat bala bopp tam def waxoon na saa si ñun démb fii mu ne saa si démb ñetti araf la tey ñaar la mu ne tilka yooyu la aaya ayatul quran ñu aaya alquran wa kitaabin téere mu biir mu dee aji jibbe dafay feeñal dëgg mu tut mu jàppaloo ko mu delloo ak kese boobu boobu jiw nga ji baaxam la bokk bu demee jot ba ay ca ci yenn waat ak yow mooy taw jëro nga ci fekkoon ni mu baax na tuuti ko ci ci kanam yàlla bu nekk jaan mu jox ko mu ko fekkee ci ñëw ci ci liggéey mu yenn waat su ko sonnee mu ko fekk jaan bu ñu dawee moom ñu ngi dawee daw dabal du rafet moo tax yàlla war ko ko jaar yàlla yàlla ko ko borom wala ko ko mu sànni ko mu ko seetu jaan mu def ko mu nekk moo tax mu ko sànni ko keroog dara amoon mu ko seetu jaan ñëpp day dem mu raam la doon bëre jàppal na ko rek xam ne dara day doon nekk de waaw te xam ne dafay ko xam ne ñu jëli ci yële xam mu jëli dara dara ñu ko am ko jëli ñu kay ko ñu ba day mu ne ko dugal ko xam ne ñu ko dugal ko xam ne ñu am yënne ko loxo yi dafa toolam ñu ko xaw ñu waaw kon jëndee rek mu ngi jënd jënd suñu jamono jënd jañaare yéen ñaa yéen saa yi ñoo xam ne moom lañ ko jox pour mu test rek dëggoo pour demee ca dara moom. Moussa bu ko yàlla laajee li muy jot a loxoonal la daf ne ko sama waxat la laafal ko boppam jaam lépp lu mu laaf ci boppam rek jaam la ci moom na ko sànni yàlla moom jaam bee lépp bu ba mu ko sànni mu nekk jaam. mu defar ko mu nekk aw ete mu muy mujj daal boo xam ne moom lay nga dem looy garaaw na am itam soo gisee mujj daal bi yàlla def ko ci yoon yi mu baax a ne soxla na ren yi nekk ca kon yi wala wu ne soxla na ren la kon yàlla dana ko jox mujj daal dafa ko ci gënoon di soxla ete naka la ñu jàll moom la ko laajee ko lool ñu ci saa yooyu noonu taabee yàlla doon na may juróomi yoon taabee loo xam ne moom lañ leen yore nga faral di xaw ma yore nga dem ci faral ma ñu ko ñëwee ñoom nga koy ñoom daanaka kon ñu ko xaw ma ñu fàtte da ngay yore yore ba pare vraiment jaaroon ba ba ci jëlee leen ayaat na ay taabee suñu mu tëdd ni bu ñu way gaa xaaral ñu wax ne xaaral yéen yoroon jabal la mu ñu bu yaa ji ñu ne mu daal naka teewoo si ay mbaa bi yëpp jabar lay xam ne ñëw na ci jabar bu mag ñu ngi leen di am jabar la waa jaaxal la ñu yàgg jaaxal ca saa jóge war sa xelal laa ko ñu wóor na ko xam nga xam nga ay bakkan kenn xam nga kenn kenn ci yàlla la jóge waaye rek rek nañ ko gis dëgg rek suñ rek ñu gis dëgg moom saa jóge ñu ko laxaa dëggal jël noonu ci tool waxu woon ak ñu jëlee ñu kon bu fekkee ne yow moom am na dafa am lu xëy na daanaka doon mu ci am lu war a jàpp ne laa leen gën a mu keroog la ñu jaar ko rek wala ko daal de naa bu ñu leen joxoon daal ko daal ko de maanaam de maanaam man xam-xam yàlla joxoon yéen a jàll daal ko xam-xam Souleymane itam yàlla jox na ko xam-xam de Souleymane àndal naa ko naka la ko moom lañ jàngaloon rabu bu ci tool ñooyal ko ñu doon ne dugub bu ñu mooy rek bu tool bi di ko jaay di jël di jël gannaaw boo xam ne daf daa def bu guddee muy rab di wër di laaj seen seen seen bopp lu ngeen di xam ñu tagge def benn benn ci ñun daal lu ko def mu ne ko seen bopp lu ngeen di xam mu ne ko bopp lu baax lool bu fekkoon ci nga xam lay lekk waaye ci des maa lay dund bu ñëwee yàlla may ko nekk na ñu dundee yàlla daal di ko xamal ne daal di ci kaw boobu xam-xam la boo xam ne yàlla koo xamal mu di ko dundee doomu Souleymane moom yàlla xamal ko woon ginnaaw juróom-ñaar ak sama xam ne yàlla lañ xamal ci ñu ko ak bëgg waaye loolu Adama def naa Adama yàlla ko xamal tuddee moo tax mu am tuddee malaayika yi am ci dara daaw la ay yàlla xamoon na ko xam nga ko ci moo tax mu mu am juróomaat yi Souleymane am de daaw la ay yàlla xamoon na ko xam nga ko ci moo tax mu mu am juróomaat yi Souleymane am de dana wax bi ñu ne woon ñu amoon ci kàttan bi yàlla xamoon na ko waxi gannaaw dana jotee jox bi waa ay ngóor jox bi moom ak ñu doon di ko def jox yépp ko waa la naa mun saa yi laa yi yàlla xamal na ko suñu jëriñ ci dama woon nga tra yoon yàlla 200 wala li mu ci daaw ci mabal yàlla xamal na ko xawre waaw am te baramaani waaw bi yëddoo ku feebar ak di dëkkal ku dee xam nga yàlla wax ne waaw na naam jëtu naa noonu yàlla xamal na ko xam-xamu bi àndatu moo tax mu am taali bu daji Musa waaye am na solo yu noonu yeneen yàlla Muhammad mu xamal ko alquran ak salaatu waaw loolu damaa doon def comme ça mu am nga xam nga am nañu mbir yëpp booy jëfee wala ñu jëfee ñu wala ñoom ñaar ñi yàlla nañu jàngal boppam ku ci nekk am na xam-xam xam-xam ba digal ba gërëm waxaala ak ay wax ñoom ñaar yëpp xamal ko xam seen yoon bi laay ñëw na yàlla donc yàlla na la xam ne parce que ñoom ñoom ñu ala ñu jaay ñu ñu bari ci jamono xam ñoom ñu ñu ñu ñu ñoom nag tamit ñoom yàlla yooyu yàlla may ci xam-xamam la dee woo leen sa tool doomu Souleymane Souleymane laa wala laa wala de gannaaw laa wala de doomu Souleymane moo doon xam-xam la de wala doomu Jalle waxaale ko Mbar yaa yaa naa dinaa xamal leen noonu am na fa tey wax dëgg naa woo man yàlla xamal na ci kii yoo xam bu ci kii rafet mu ne xam ne moom wax naa ngeen doon wax ci kii am na ci yoo xam ne. amul xa amul xam amul ku xamal ku xamul ku nekk mën nga koo xam li ci baax amul ku ne xaar waaw waaye gannaaw loo dégg lu mu wax rek am na maanaam ba nga xam ne Souleymane nag yàlla xamal na ko mooy li gannaaw wax muy sant yàlla ci boobu teewal na yàlla jox na am xam ne xam ne gannaaw bi wax wóor na jox na ñu ko nekk lépp lépp yàlla jox na lépp lépp ñuy jox buur naa la na ko jëlee lool moom foog na moom di gën a raw di gën a jaay di gën Souleymane moom naa dina rek am rek mu moom ci ñoom ak ngaa àll yi ak gannaaw yëpp ci toppam ak ñoom yi waaw ci la ko booleem Souleymane moom Souleymane dina doon dina ñëw ci ci ñoom ci jënd ba koy dem gannaaw bu daa tukki ba ñëw ci góor sëriñ bi nga xam ne moom la ko jëlee ca waxal mu yaay juróom-ñaari bopp bi nga waaw yaay xale bi di koy bopp dafa mel ni que fa ñetti téeméeri jot pour jabar yi ak juróom-ñaari téeméeri jot pour baaraam yi ñu ngi jabar la amoon ñetti téeméeri jabar ak juróom-benn téeméeri gaal ak juróom-ñaari téeméeri gaal ak dafa koy ci ci nga xam ne ci la war a mën a ñu toog ak àttekat yi. xale bi rek ñëw ko rek loolu la ñëw xaw ñëw pour que di bëri xam ko ginnaaw moom ñu koy yóbbu ko mu bëgg. waaw cër waaw cër mooy lépp ñu jox pour rek daal ñëw. kon ñoom ñoo doon benn boole leen ko comme moom la ñu def ñëpp dañu leen di boole man la ñu ñëw ci topp vraiment. lépp loo xam ne yàlla mayoon na ko yéen ci jëfee ci kalaama may na ko fekk yéen su laa yoroon la waroon na yéen a dañu gëm yàlla nag waaye dana gëm yàlla dafa war a ñëw xeet yi xeet yi ñu ngi ko yëpp kat lañ bi tubaab yooyu ci américain yi dem ci yéen ñëpp ci ummatu daawat lañ bokk yéen ko war na def ummatu bi jaabe dinañ mooy ñu gëm yàlla soo boole boole mu kat yi nag lépp lu yàlla tàggatoo ñu nit ñi tàggatoo na leen ko tàggatoo na leen daaw la leen di ñëw tàggatoo nañ ko ñëw ñu mën ci yéen di ñëw waaw kenn ku ko wér tàggatoo na leen Souleymane Ngaw tàggatoo nañ ko kàddu gi di jëloon ñëw ñu tukki léegi nag loolu dafa war a yokk gëm yàlla ci ñun ñëpp gëm yàlla waaye ñu yàlla dañoo doon def seen ñu gëm yàlla ñu gëm gëm yàlla dañoo gën a war yàlla def ko ne saa see mën na tax a jub yàlla ñu war a mën a jubloo mboolem ci saa see ñëpp tey jii yàlla ci gën a màgg te yàlla wax na war a war a doo laxanaa doo ñu naan doo am jaamu réew mi dañ leen ba tey jëm yàlla ba jëloon ak jëlaat safara suñu def leen jaaj ne dana yegg waat boole saa see mën nga jubloo kenn yàlla jubal daal su ko toll yàlla ñu jubal. xataa ñu laa taw bañ ci caa bañ la ko xaaraa di nam li tekkul xarala nga def yàlla na yàlla xale maa ngi dugg xarala boobu mboolem xaral jiw bi ñu ci ñoom ginnaaw diggante saa yu bëgg saa am ñu am lu bëgg la xorandoo xaaral ma xam ne mu aw xorandam te mooy buuru xorandam ya te kenn xaral su leen ànd ñu nekk ci ñoom mu ne laa ñu am lu buuru xorandam yi ku loo xaral leen ma xaaj ma suñu kenn ko waaye leen laa ci man na kumpa damay Suleymaan Suleymaan ñu ne ñu ne woom te ñoom laa xorandam xam ci ñu rek wax na ko boobu Souleymane xore na leen ñetti ñun yéen a Souleymane di ko wax xorandam de ci ñetti ñun mu daal di taxawaloo xare ba parce que parce que tamit mooy waaye tamit moom ay ñoom ñooy jëm kaw daal di doon am def moom yéen a Souleymane lay jàpp ko ndax li xorandam di wax rek dégg na ko ci ñetti ñun mu taxawaloo xare ba ñu taxaw mu dox bàyyi ci xorandam la ne ko yow sax nga naan xorandam yi dugg leen ci kër kër yi mu leen Souleymane dama xare ni ndax nga def ndax man bu muy tooñ la ah mu ne ko déedéet ah dégg nga ma gis rek moom laay xoroon man duñ ko xam te man sax dama gi nga jublu jublu ko ko dama seen mbagg yi mu dem ba loolu wàññiwul dara waaye ñu gis sa nguur ak nga jure seen xol yi aji ci te seen yedde yàlla wàññeeku man boobu dama sax laa jublu xorandam boobu ci ñoom ñi nga xam ne ci ñoom ñi nga xam ne dañuy demal lenn ci la ko waxaala sama wax bi la borom sama aw seen yi am na léegi wala ma sura bu ma sant ne ma dafa teewal ko te ci teewal du la xam ne anam ko teewal ko ala islam wala wala de ak yaa wala ci wala wala amala ak mu wala wala sare ne ko ñu war ba aw seen dafa dem ko wa xam ni ya na la xabe wa ya ma ci ci ma ne sa ya bari ci jam ko fa ñu ñu ñu le ñoo jara sa ma ñu ci jara su dee nag ah di ci barab ñu tàmpal ko ñun barab boobu mu toog waaw ci ci yëpp dañuy daal di toll ñu ñëw daal di fàtte ci ko rek waaw waaw rek waaw jokkale seen i mbëgg moo doon nekk su garganeem ci ci yëpp a doon xeral mu des nag gis ah boo xam ne barab boo xam ne ci ba ba nekkoon nekku ko wax dëgg fa xam ne ne nekku tey rek ñaar la ci nga xam ne mooy wute mu bàyyi bëleem bëleem mu mu nemmeeku ko ni mu ko nemmeekoo mooy ci ci dañ koy gis ñu ngi ci ñu ngi ko xam ne comme dara yoo mu xam ne ci wàllu nga demee ko mu laaj ci ne ko wóorul wala ñu ngi ci waaw mu daa dox bu mu mooy ci àll bi rek bu mu bu mu laaj ko nga doon xam ne mooy ci wàllu ci wàllu waaw moo daa wala lox waaw moom jàppal dafa jot nag ñu bëgg a jàppal day ñëw daal di gën a ñëw wala leen mu laajte ko ci ci bële ba am loolu daal di ñu am wala ñu bëri ba. waaw xaaral ba wax ma ñu daal lool man waaw man xaaral ma ñu bëri man de loolu moom laaj bu ñu ñu ko def am daal ndax nag dama mel ay ñu ne doole ma dina moom fu mu dem dem na ko xam ne woon waaw di ban wala ay ñu lool lool. waaw lu ko defal li ko defal li ko defal lu mu gën a lu mu gën a lu mu gën a lu mu gën a lu mu gën a lu mu gën a lu mu gën a. waaw daal boo xam ne wala ay yoon wala lu ko tax. wala yaa ngi leen di. mu ngi jëm di ko xam ne ay yoon bii la. kon nag xam nga dama leen di laaj wu si boo xam ne moom moo xam ne baal ko. kon nag loolu comme ça nga xam léegi moom bu ma ñu faral di dund mu daal di dund daal di ñëw yaakaar naa ne dina dina ñëw mu daal di dund bu mu mën a nekk ci yàlla nekk yow man de comme nekk ay ñu jëm mu daal di dund ci la tool yi waaw nekk ay ñu doon doon koo xam waaw mu ne ko yàlla na yàlla li nga xam ne li ma te doon ñu daal te doon waaw waaw bu ma bu ma waaye mu ne ko bu bàyyi ko ne ko waaye yéen a ngi yàlla wax dëgg yàlla mu ne lu mu wax mu ne man dana mu gën mu gën mu xar wala mu leen di la mu ne saa suuf mu ne dana aw yaa yaa ngi ci saa yu yéen wala mooy li lay wuti te mu ne dana am li lay wuti xali na am ñoom ba ci kanam vraiment mu daal di mu daal di soxla ci kanamam nekk ci boppam yow waaw jaam te la yàlla mbagam te Souleymane daal su ne naa la yàlla mi nga xam ne ñun ñu mën a doole ñu mën a doole moo faral di waaw pour ñu bëgg a te te ñu ba ba noppi. su dee su dee naan ne ko lu mu doon Bakara tam wax ne ko ah suñu dem naa dinaa dem fii keneen ne néew ci ci moom mooy jiitu ba dikkal naa dem sama yéen ci sama yéen. mu ne ko gis naa loo xam ne tey waaw gis nga ko la tey ci àddina maa ngi la dikkal ma bàyyi ko sax ñu ne la daxwaan danaa ci dem xam moom àddina yëpp ñu ne danaa boo xam ne waaw takk na nguuram waaw ci sama yéen ci nguuram la ko moom àddina yëpp de yéen nam dem de dañoo mu day sama yéen dañu ne ci ne ci ne bu ñu ne kon juróom ay dëkk la ko ñëw di ñëwee yow day xam ne suñu baa ñu bëri moo ko xamal mu ne ko war ñu dugal seen alal di soobee yi te soobee yi dina bëri te soobee ak yow di daal di wóor dañu naan la soobee su wóor bàyyi ko ci yow soobee yi ñu ne xamal ma ba jot ko fekk noonu ñu ne ah dañ ci jël tamit ku mu dëkk nag moom leen fekk naa yow moo xam ne mu bu rëy la mooy soobee yi ci yowoon jigéen ko moom mooy dëkk bi sax. waaw yéen keroog naka bu ñu ko defee lépp lépp lu ñu àgg de lépp lu buur soxla ci àddina yàlla jox na ko ba léegi ci jumtukaay bi nga xam wala ñu ne la ba xaar suñu xaaral xaar suñu bu dee aji màgg moom ba tey am na xaaral bu rëy xaaral nga juróom-ñett fukki xasam loolu lan ñu ngi tëdd juróom-ñett fukki xasam yaa ñeent fukk bu daan ci kaw ñett fukk lépp ci ak xaalis ñu dëkk soo ñu doole yaakoo bu bu xonk ak soo jël wax ba ak sumul tànk daal ba bu bu bu yaakoo bu xonk la ak soo jël wax ba juróom ñaari néeg da ngay dugg ci néeg tëj dugg ci beneen tëj dugg ci néeg tëj ba muy juróom ñaari néeg la ko baaxee jaara kon boobu nga xam ne moom lañ doon ñëral jabar boobu lay tëdd moom ba وجدت هذا كما قال قوم عن لم يسجدوني سجود ربي الجنة من دون الله الرجال فكما قالت moom dërëy amul yàlla xana xëy lay jaam jënt bi lay jaam ba sa yàlla ba sa loolu nga leen sa jaam sa xana ma doon jëf ci leen ba sa doon ko sa leen ani fa ñu ñu yoon ju ko ñoom la sa doon ju ñu ala ci do ci jëf ni la ñaa yàlla te yàlla nga xam ne ñoom ñu gënal ñu gënal al xala la xëy ci sama waat jaar moom juróom yaa war a def juróom yaa rek fekk na dëgg-dëgg yàlla rek dañu war a def bëgg moom ñu am kàttan lu lay nii mooy jëlee ndoxay jëf ci asamaan ak suuf waaye amul dara mu xam maa rek wala dañuy nëbbu waaye naa def nañu seen ko rek meloon na yàlla yaari meloon kàttan ak xam-xam kàttanam ci lay génne lépp ndoxay jëf muy génne ci asamaan waaye ci kaw ndax ñu wër ak suuf kàddu gàncax yi te xam nañ itam lépp lu nëbbu mooy lii ci wax mu ne ci bopp xolam ak lépp lu dee xam nga ko wax xam-xamam jot na kàttanam jot na ñu ngi dëppoo rabbul mashriqi wal maghribi wa ma baynahuma la Musa waxoon ak la Ibrahima waxoon Namrud rabbi ya rabbi yuhyi wa yumit waaw mooy dundal ko mooy rey ak yaa ci ñu tam ci ñaan mashriqi baati jaar min al maghribi kàttan bi loolu ñu naral dana la yàlla mi nga xam ne moo am kàttan lu mag doon ak xam-xam boobu moo la dara ndox te sax ñu dem ñu di ko jàng Allah yàlla naa yaa def bu mooy jàng ci dëgg daa wala ngay moom rabbul arsi mooy borom ala si ñu gën a di màgg rek wala xam ne wax na loolu nag ne ko gis naa ndox te sax ñu borom ña nga jëkk bëri jàng naa ne nii la mel nii la mel nii la mel xaaral Suleymaan danantu danantu dafa dafa ndax dëgg la am ku sa am na yéen ñëpp waaye dina ca war a nar ña mu ne ko dama mat sa wax nga xam ne nga wax dëgg am de daal di ne ko léegi wane ndox mi mu daal di wane ndox ma waaw dina daal di ko daa waaw kenn ndox ma daal di bëgg ñu naan dem naan dina daal di jàpp julli ba jullee ba nag yéen yàlla Souleymane bind lettre bi bu kenn ci gaaw yàlla Souleymane ñu daal rek dem ci dëkk bu rek ko rëy bismillahir rahmanir rahim salaamaaleykum tabaaraka dafa duñ ko wax salaamaaleykum salaamu jullee julli rek ko jagoo waaye boo bëggee waaw bind baaga faaw ci leetar tudd jullit danga salaamaaleykum ne tabaaraka daa moo tax ñu ne ñu bind jullit ci def salaamaaleykum ne tabaaraka daa waaw ñu gën a réer réer rek lañ ko war a gannaaw loolu nag waaw mu mu tëj ne am naa baaga faaw saa yoo xam ne yow atumul muslim yi ne ko bul wéylu yow jëbbul si rek loolu laa la sant daal di ka kàtt leetar lool sant ko jaaroon ba jox ko wut da ko ci sax demal ci kaw yi ba tax a gën a asaale dafa am ay fan yu bëri yu ñoom bu la ko yóbbu defal ñu wane ne fan yii ma ko def defal ñu fan yii su ma taw rek parce que dëgg la am na mu ngi dee fan suuf si ak maa ko xayma yoon nañu delloo ci waaw loolu dañu fan yii defal ñu ma xam lu ñuy wax bu mu gën daal di naaw bu gaaw daal di dem dëkk Balti daal di ko fan yii defal ba rek nu mu ko mën a fan yii defal ba mooy Balti ñu dem ñu ko taw a xaram nga xam ne ci aarasam boobu ñu doon ñaral ñett wëccal nañ ko ci palanteer boo xam ne ñu jubloo ci jant bi fenke nga xam ne bu jant bi fenke rek ba jañeer yi dugg ci palanteer boobu mu xam ne jant fenk na mu daal di jubloo ba jant bi te palanteer boobu la ñu dafa jaar ba sànni jur te sa leer ba mu ñaraw rek wala xam ne ñu sa leer ba xaar ñu wax moom ba xëy ba xëy sànni dajale na nguur way te di nguuram la dina yaa yaal marew yi ngeen mbooloo mi indi ya naka maam kon xëy na fan yéen a ilay jox ci maanaam ci kawam ba tax a kërëm mu dugg ci kawam kàttan rek man de sànni nañu ma lettre boo xam ne ñu ko kàttan mu bàyyi ko ci kaw rek daanu ci sama kaw. indiwoon na ko moom mu Souleymane su gën a ci Souleymane waaye indiwoon na ko li ñu lambam bismillahi rahmaani rahim allah taala bu leen rëyu alay ci man waaye doo ñu dikkee noonu suñu noonu ñu ngeen di wéy jublu jëbul rek loolu Souleymane bind nee naa dem jëbul ji ci moom rek. xaaral mu wax moom ba xëy na yaa yaa ma rew tey yéen mbooloo mi waxtaan wi ubbee leen ma waxtaan wi dindi leen ma fi am di dindi sama mu ne ñu ngi gis nag wax leen ma lu ngeen ma dindal lan laa war a def ci lettre bi wàcc ci man maa ko nekk ci ma xaaral ma yaa ngi dogal am na nit ak kooku sa yéen ba ba ngeen dee si man de man du ma dogal dara lu may doo xam ne d'accord ngeen jàll ma xaaral ñu ne kon maanaam muy wóoloo ku wëcc borom yi kattan lañ wóoloo baax nañ tey war na ay xaaral sa biir wulaay bi sax wala mu ngi nii tey jii dem na ci yow fan su ñuy seetal maa saa saa mu ne la da nga digal ñu bëre ñu ne ko ñun am nañ doole yoo xam ne ñun benn buur mënuñu kër am nañ ay xale yoo xam ne kenn mënuñu kër ñu leen loo bëgg rek ñu daal di ko def ci Souleymane moomu rek xewal ñu léegi ñu daal di demal ko xaaral mu wax mu sant leen tur mooy buur tali mu ne leen dinañ buur yoo xam ne day buur yaa taxawal ne xarax nañu xaree ko ndëkk parce que doo am yàq ko rek waaye bu bu duggee ci réew ndax day rafal wa jaaroo te mu jël en général yaa waaye seeti ñaanam ak yu ndëkk ñu doy torox boobu wàcc ci réew dafay safaan la nga xam ne moom la ko dekkoon de dafay rafal dëkk ba ñàkk doon ñu jëfee suuf ñàkk ci doon suuf jëfee leen ko parce que daal di jëf ak kenn jëf jëf jëf dafa loolu la ñuy def te boobu ñaan tàggale yoo xam ne maa ngi wàcc ci loolu la ñuy def rek waaye ñu ne xamal mu dina suñu aji yooyu dama leen jëm ci ñoom de adiya duñ ci adiya da ngeen bàyyi daal ma yéene ko adiya ba naa dina suñu aji seet la ma bi ma ci lan yàgg ñoo lay delloo ak ma ko ñu yëg ñu rek dama ko yónnee adiya su ma ko yónnee adiya ja boo boo boo soo yem ñoon demee ba nit danaa xam su dee su nangu adiya ji ma xam ne buura ba dina rek la buura ba dina moom mënu maa ko sax bu dee buura ba dina rek ma xeex moom xam naa ne bon maa ko mën su fekkee na ni bañ naa adiya ji ma xam ne yéen a doon yàlla bëre bu dee yéen a doon yàlla bëre mënu maa waaw naa ci bëjanteeg moom rek ay jigéen indi juróomi téeméeri xale yu góor dogal leen yére jigéen takkal leen yére takkaay jigéen ñoom mu xaw leen yére góor jox leen gànnaay mu xeeb le mu jox leen juróomi téeméeri jàmbale yu ak njëkkal bu nit loo xam ne ci jawaay lañ ko liggéey ak nit ko ak xandar jox ko itam benn sëmb boo xam ne sëmb bu nit la boo xam ne bënnaguñ ko ak beneen sëmb boo xam ne bëri nañ ko waaye naka buñ ko fekkee mënu ko la mu ne suñuy demee su sooy Souleymane gisee xam ne góor ñi ci jigéen ñi te bañ a nangu ak yéegi te mën a bënn dëmb bii nga xam ne mën na buñ ko mën a naf mën a naf kàddu gi nga xam ne naka buñ ko rek ma xam ne yeneen daf yàlla rek ndaw ya daal di jóg bu dul daal di naaw ñëw wax ko Souleymane xaar Souleymane daal di dajale jiite yëpp ne leen defal leen ko ba bur ci yoon wi ñu dikkee juróom ñu leen di far far ci yoonu yaman na ngeen ma ci defal comme boo xam ne wutu wutu gunóor la yaa ko def dafay jënd ndox ba rek ngeen koy fomm léegi ñu ne daal di taxawal comme boo xam ne juróomi ngeen di far sax bépp wutu ngelaw ñu ne daal di taxawal comme boo xam ne juróomi ngeen di far sax bépp wutu ngelaw mu ne rëbb leen nag rab yu rafet yi ci jiw yi yëpp leen yeew leen ci boori pom bi ñu nekk ay yëgal balaa ndaw ndaw ndaw si ziar ñu def loolu yëpp mu wàcce mu ne wàcce leen saa ba yéen ñu dumbaat ñu ñu ñu ñu dajal ci kaw pom bi ba ndaw yi ñëwee gis pom bu ñu jaaxle ñu leen fàtte leen pom rek la. ak seen jàmbale yi ñu ñaanoon doon ko yem ñu jaarale leen ci fawru kooku moom jën jën jëne ko wax na kàlla jënd ko ñu ne jinéer yi yéen a def sax leneen jinéer dañoo wàcce ay ay paspalaat yoo xam ne ma nga yem seen jàmbale yi ñaane ba ñu leen di palaat la ñu teg seen jàmbale yi ñam ca ñu ne ñun ci yóbboon ñu daal ñu wax ne ci lañ ko fajee ñu far ko ci bàyyi ñu daal di ñëw yonent yàlla Suleymaan indi leen ndox xale yi tamit ba xale yi tamit góor ñi ñoo ko jëlee jigéen jigéen ñi ko jëlee góor góor ak jigéen ci sëlmu rek nga leen di xamee xale bu góor buy sëlmu bu xasee rek ci kanamam la jëmale xale bu jigéen buy sëlmu bu xasee daf koy def ñu jël loxo ba jëlee góor ña daal di xas rek ku xas rek yóbbu ci sa kanam te ñoo ko jëlee jigéen ñi Suleymaan ne taxaw leen ci ñu ñëw góor ñi waaw jigéen ña xas def ci biir loxo bi ñu def mu ne ñu jigéen la ñu taxaw fii muy indi sëmb ba ñu ñëwoon ndax dana ko mën a bënal de mu ne ana max max ñëw mu ne ko bënal ma sëmb bi léegi max daal di sab bëri waaye bu gisee ñu boor gën a boor ba jëlee moo tax mu ne vraiment jaa awum vraiment jaa àll bi kële yonent ba ak hadee ja Souleymane Souleymane xaaral mu wax moom yéen a ngi yàlla vraiment ak suñu doole yi ah da ngeen tëbb ma bi maa leen ci gis alal ngeen may indil vraiment wax dëgg yàlla la jox na ma ko yàlla ci yéen seen nguur xëy na moo gën maa attaqué te la ma jox leen rek parce que ak suñu yéen sa problème da ngeen jëm jaay yéen ci ak yéen seen ndax seen ak yéen ñu ngeen di fugalee ak yéen jaay yi ngeen jëm ci ñoom parce que sa xarem ba par exemple yàlla moom walaay dana ma gis leen di gunóor ci leen laa xamal ne kàttan doom ñeneen jaay ci moom de yéen ngeen ko def gis na ko damaa takk xale waaw ñëw waaw parce que tàmbalee bi wala loolu gànnaaw dara lu jëlee ñu naan ci kër jëkkër yi ak la dañ ñu way ko wax ñoom sax na way ko wax rek la ah nawet bi moom daal di jël donc daal di la jëtul ci jéem a jëlaatee donc dañ daal di sëñ nag ñeegam ñeeg ci gannaaw ñeeg ba juróom ñaari ñeeg ñëpp mu tëjee daal di tapay dëkk ba tëj bunt yi dëkk ba yëpp daal di laxas nag ànd ak fukki junne ak ñaar ci buur buur bu nekk ay junne na ci gannaaw ñëwee nañ dem fekk Souleymane rek ba ñëwee ba gis Souleymane nga xam ne fat faq rek moo tere fat si fàcc ci Souleymane xaaral wax nañ ci yàlla Souleymane yaa yaa ma ngeen mbooloo ay kum kan ci yéen yaa ngi naa mu di gën a baax yaa ci gàllankoor naa ak barke bi xam naa yaa tooy ñëwee dëkk bu ñu dikkale moom dañu ne ñu ngi lay jëbbalu xanaa kuy dem sama yi léegi xanu waaw jàng naa dafa ba xis laa yoon tëkk ci juróom-ñaar ñeegal yëpp yi dem léegi yaa nu ko indil ma ko balaa bi xaaral xasale yi mbër bi ne xasale yi mbër bi ne di ñetti ci ne ana man aati te na ma dikkale di ñoo xam laa ba xaw ma dëkk bu may dugal ma xam ne ci taxawaay xam yaa te yoon ci yàlla vraiment mu xëyee fay toog yaa te ñu ñu bëgg di jar noire yàlla jinne na ko man de boo xëyee toog ci place bi ngay àtte balaa mi ngi jot dinaa la ko indi waaye ñu daan ka man la xaw yu aji dëgër laa ay ci moom am nañu ku ñëwoon laa attan naa ko te am naa ko léegi ci mboolem bi jaw ak te dafa nekk yëpp su ma jëlaat dara Souleymane bëgguma loolu lu gën a gaaw loolu laa bëgg xaaral wax la di caaka ndaw ak dina kala moom xel moom xam-xam ñu naan ci baalu ci téere ba te nga xam nag ne yàlla xamal na ko suñu yàlla war nga xam ne moom la ñuy toppandi ko dañ koy jaam laaj yàlla yàlla daal di koy jox ci taxawaay te mooy affaire yu mbar yaa ne ko ana man aati kër na ma di kër ci ci yow xam naa yàlla ko def dëkk bu delloo ni rek jëm ci yow kàlla fu ko bët tëddee affaire yu mbar yaa ne ko may ñu ko léegi balaa ngaa xool xam vraiment xool rek xam suuf fekk naa yàlla naa gaa ngi teew ci kanamam toppandi ko la def ñàkkal ko fam nekkoon amal ko fi ñu fi ñu nekk jomante wu sax di ko toxal kala maaraara ba mu gisee ko mustaqiran muy aji dal ne andoo ko moom ba Souleymane xoolee rek gis dangu naa ji teew fi kanamam xaaral bu wax ne ah saa dindi ñu ngi ko def ñu ngi ko def ci jaay borom sama ñoom ñu wane ñu nangu na sama ah sama ndax dama sant sama kuram dama weer de mu ñëw dañu am ziara vraiment te ñu ñëpp ndax nga ne yàlla rek yàlla daf may natt ba xam naa sant am dama weer ba man sakkara ko sant nangu tey na maa yàlla naka dana mu sant leen na fi ñu ne loolu ba man sakkara ko rek nangu tey na ak naka borom sama xale yi naa ci dee nangu waa wani seen tam tey mu naa ci waa xale dama def xaaral ma na ci loolu parce que dañ la am ñaar saa saa gàmm naa nga fekk na yéen yàlla vraiment ci may naan ko ba sa tooba ji xëy sa kandara nekk ci def ko jabar waaye bu ko def mukk mukk mukk dafa di nag kam kan ba mel ni mbaam te itam ay tànkam dafa mel ni tànki mbaam te itam dafa bëri kawar ba nga xam ne mi ngi mel ni ci kër yi bu yàgg yàgg daal bu sëy moom booba ci ne yaa ngi ragal yonent Yàlla Suleymaan bu sëy Bilqiis buñ judee doom doom nga dafa yéen yéen dafa yéen jinne yi dafa àddina yem loolu lañ daan daw yonent Yàlla Suleymaan nag bëgg na li wax ne dafa ñàkk xel mu ne fokk gana jàngu naa ngi yokk leen ci tuuti wàññi ci tuuti balaa ci man fa nu xeer attaque bi ndax dina mu jub am takk na am dina mu nekk muy rek ci ñeneen la yàlla ñu ñu ma xam dina ko xamee déedéet ñu fokk li jàngu naa ga tuuti wala ma jaar dañ ci barke te wax ya ñaan fa ah dafa naka ñii la àpp ci jàngu naa ga vraiment ne ko fa jàngu naa ci nga bay barke parce que sama yi ndax nii la mel xaalis mu wax ne te am na yow daanaka moom huwa moom la mu ne leen ba mu ne fa mel ni mooma Souleymane daf ko nigal leen su ko newoon ndax ñu sa gàngonaay jee daf koy wax moom la waaye daf koy ndax ñu ne sa gàngonaay ga mel moom mu ne daanaka moom la ñu ne leen na ko mu ne leen ko mu dal di xam ne ci xel mu mag la am ñàkk xel dañ doon wax su dëgg woo ci Souleymane ne ko ne ko sa gàngonaay nga bàyyi woon la rek woo ci naa joxe ma leen ma xam-xam nañ xam daa ci jëkkal foofu naa ko nekk mu ci ne ñëwee jéglu wa sa daa tegoon na ko moom ndox maakaaroon dañ nekkoon taw bi jaamu ñu leer bi yàlla waaw fekk na docteur moom dana la doon jaamu bi yàlla dinaa naka moom kàddu nekkoon amul amul suñu kàddu nañu doole de ñoo ko def Souleymane tabax leen ma tax am ko guddee boo xam ne ci weer rek ngeen koy liggéey ndax ngeen suuf ga waaw ba mu xóot ngeen seetal ko ndox napp ay jën def ca waaw ba noppi ngeen kaba ko ay ay ay ay ay seetu ba xam ne soo ko siyee fay mel ni ndox mi man man yi ñu seen jën ñu doon mu ngi bëgg a seet tànkam yi ba dafa bëri kawar ak dafa mel ni tànk mbaam di la wax daal ñu naan foofu dox ñu kawar am fara ba am kaw ñu ne ko yëngal ci ba am kaw ma ne dem fekk Souleymane foofu la nekk. ba mu jëlee gis daal ñu mel mali rek waaw mu daal di wax ñaari teeram ak tànkam bala maa raadu ba mu dee ba xaati ba nu mu jot ko lu jot mu ñu la dem géej ba kat dafa dem mu ñu am ba daa ci yaadu teeram rek mu daal di wax ay tànkam nañ ne ñu bëgg a tuuti lool. xaaral Souleymane ne ko ina la naka moom sawul sawam sawlam maradun mu ne muy karoom mi xawaare na ci bu del ci weer mu ne ko dugal rek du du def ba suur waaw kaax la moo xam ne dañ ko liggéey ci weer rek ci seetu xaaral moo wax moom ba tey ba naat ba ci yoonam yàlla Souleymane ñu la def ci wax moo rafet dañu jëfalu ne rabbi nga borom sama ini naka man salam du tooñ naa ndax suñu bopp sama day jaamu ku dul yow waaw loolu du jégalu na am Souleymane la Souleymane li lay rabbil alamin daa di moom bu ñëwee de jégalu naa ci yàlla ànd ak Souleymane yéen a yàlla bi ah yéen a yàlla Souleymane daal di ko bëgg a takk nag def ko jabar bu fekk tànk yi ñu waxoon dara nekk ci waaye sax bu bëri bi ñu ko waxoon nag moom am na bu wax ñu ne ko defal noora ñoo ko defal noora watukaay yi nga xam ne dimba dimba ñu daal di ko wat ba mu set yeneen bi yàlla day naan daal di ko takk dañ ko bëggee bu rëy bañ ko ci sax yi weer wu nekk mu dem ziar ñu ko am fa ñetti fan gannaaw nag nguuram Bilqiis jeex na nguuram Souleymane jeex Souleymane moom naa dina ko wax fukki at ak juróom fukki at ak ñett rek la mu dee ba maanaam juróom fukki at ak ñett Souleymane Faye Bilqiis na am nañ doom mu tudd ko Daawuda waaye dafa dee ci ndaw yi moo tax li jinne yi wala dara amul doom jooju su màggoon rek jinne yi doomu adama yi jinne yi ba dina tukki ndax sobe yi donc baayam ci jinne yi la bokk yaayam ci jinne yi la bokk baayam rëbb la woon rëbb yaayam mu jinne nga rek mu sëy moom gis ko dërëb yi dërëb yi nga xam ne ca baayam ci jinne la bàyyi ko su su sëyee Suleymaan ni yéen ci jinne yi ñu juree doom jinne yi loolu ñu gën di gën a seetloo doomu aadama mu ko delloo la jinne doon bañ wala ko daal ko maa ngi leen di daal ko moo dañuy gis sama daal aw mbokk seen soxla am soxla am na dem rek ñu ubbi daal rek ñu yàlla jaamu tey saa am lu rek moom ñoom peut être am ñaari kuréel yàq si moom dañu xool ci jinne dañu ne ñu gëm ñoom ñu wér xaaral waaye yéen ña yaa xam ne nit sama li man di daal te saa ji la ngeen yàkkam bi di sa yéen ci mbugal xabar ak di di def yéen man yàlla lawla ba pax loolu Sénégal loolu laa la daanaka mbooloo yëpp amul lu dul yëpp de xaaral ñu naan istayaar naa gaafu noonu di ko ci yow yonent bi pour ñu naan maa kaa ñu ànd ak yow de ñu ne yonent bi yow sax na ngaa ay gaaw ba nga seen ba tey la taw bi jàkkoon ñu ñu fi xaaral yàlla saa yële fu mu gaaf seen indi waaye ñu nekk la yàlla ba tey antu ngeen xaw ma ñu ngeen tukkal na ngeen ngeen nattu leen de yéen su ne gaafu dëgg de waaw yàlla na si jaam yi ci ñu waxee waxtu ko soobee rek waxtaan nekkoon na fi Madina di jëlee njëndi la ci Samo la ci Fatou Rassine juróom-ñaanti góor juróom-ñaanti yaa ko gàllankoor ci suuf fekk na dëkk ba am na juróom-ñaanti góor yoo xam ne ay yàqkat suuf lañ loolu taxaw ne moo baaxul ñu ne bu njëkk ñu jëndi juróom-ñaanti góor ñu yàq suuf ak yeneen léegi nag kër bu nekk mën naa am juróom-ñaanti góor yu yàq am fa def wala wala teewee na ci ñu xaaral ñu am Faxal moom Gineen billaay ci yàlla danu béy sànnaroo wala danu xalaat ko moom yonent bi waaye loolu ñu ñoom su ma gën a xoolal ma topp doon wax di war ñu ñu wala daanam maa fay naa fekke wu ñu mu la gaal yi xalaat ñu ñoom de ñu daal def saxe nag ne nañ mbële ba ci pàngu saa yu ñu rey ko rey waa xam ne dañuy dañuy wax ne ñun bañ ba mu xalaat ñu fekke wu ko woy naa nag ñu nga faale ko loolu dëgg lañ de wa makaroo dañ saxee makaram saxee ñu def seen saxee bu gaaw ak saa yu wa makar naa suñ saxee lu yàlla makaram saxee man yàlla it ma ne sama saxee rek wow ñoom daal sama ñoom xamuñu de kon su seetloo seetloo kaa ma demee kaa ko su ma ko yëngu jot saxee seen seen saxee lu mu mujj dinaa la gënoon dem ma maam xale ma ne ma xaw ma ak ñu seen ak may am bu ñu boole rek ñu daal di pare ñoom juróom-ñaan ñu bëgg a ak saa yu daal di tàggoo ne ñu tukki tàggoo ci biir bëccëg daal di fàq seen bagage rek ba mu béy noonu waaw ñu ngi lay tukki yooyu nag kër gi leen daal bu leen kenn seen biir ñu tukki waaw bitim réew lañ demee dama dem ba jaaxle ba ñu seet aw aw aw daj woo xam ne am pour da nga jaroon ñu dugg ba di nëbbu ne nañ nëbbu ci pour ñu guddee ñu delluwaat ci dëkk ba rek saado su ko defee boo jël jaar ci pour ñu boole ñu waaw ñu wax su ko rey ñu ne ñun fekkee ñu ko fekk kon nag ñu ñu tukki dañ fanaanee ci pour yàlla wàcc na nga gisal kaw ñoom ñu far dee ko parce que loolu la bu ñu suma ay ministère nañu xaawee ba ñu ñëwee wéer seen kër yi bàyyi woon gannaaw nañu ngay tukki delluwaat suñ kër yi ñu maa ko demoon ci saa si wér di seen nga rek dina fi daal di fere naka ñu nekk la ci loolu daa xam xalaw ñoom na kaw ñu ñëra ñu ñëra woon nañu gën a xam ne waan de maa ko demu sol dañu ñaan amono gëm nañu saa réew te ñun ci ñu rek la waxtaan dañu ñëkk façon dara dara dara wala doon jàngatam solo solo ci xaala ba mu waxee te xaw ma ñu ne ñu dem ñu attaque da ngeen di jël alphabet de l'autre wa antum tey tukki noonu da ngeen di suñ beneen jaraw suñ ñenn ñaari jaraw ñenn ñi def ay na kum naka yéen da taa sama da ngeen di jël di jaar góor ña saa waxtaan ci bànneex ñu ñoo ñu saa wala jigéen yéen bàyyi ci jigéen ñi dem di jaar góor ñi ban tey antum yéen xaw ma ñu ngeen te jël na ngeen da ngeen yore waa seen mu leen guddee da ngeen xamul li mu ci yéen de mooy alkare rek allahumma salli ala sayyidina muhammad ala ko tamul ba su ran ka dum dum ko jere ko ala ko je de de yawe ko xawon to de ko to ko ala ko ko ni ro ko mo tan ko de de ram no ro ko ni ro ko ko ya ju ta ko to de ko ko ko أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم wékku jawaar wax xaw ma ñu gisal ko ñu gëm ñaar ndax am xaaral dara wax seen axul yoo génne aar yoo ñu ñëw ñëw suñ xale ci buntu ci dëkk seen dëkk ñoom lu mel ne ñoom bu naa ful aw ñu dañ def saxaaba ne leen danañu laal laal ci laal bu ci du bëgg ba ñu ñëw ñu ko waaye loolu lañ sant ñu génn leen loolu dëkk bi moom ñu koy topp ñoom ñu bañ a laal góor ci dugg Fane Dieng ah ñu ngi koy toog waaye doo am na ñoom ñu dem waaw doo dara jabaram ja ah dara naa defal nañ ko ñoom xaaral ñu naan coono def nañ ko mbugal ma de lu mooy jabaram ja waaye dafa kooku moom dafa mut ci yow dafa mut sa tool Ibrahima mbay ànd ak yéefare moo tax ba yàlla yàlla ci tam terewut boole na ko jëlee wa am xar naa tam tawal xale yi ci ñoom ma xar na taw yàlla taw ci ñoom ay bët yoo xam ne ma nga bàyyi ko jëf ci parce que bon na matal moom da nga taw bi waa ñu bañ leen. taw bi dañuy ñëw ka bon ak taw ñooñu ci yoonam yàlla loo de dañoo saxaan kare yàlla ga yàlla ñu ngi xam te àddina def góor ñi def jigéen ñi def dëkk def jabar ñi ci mën a bàyyi ko seen diggante ñoom ñu wàcc loolu dem ci bànnee wut bànnee ci góor te xam ne loolu ngir tudd jabaree ko moo tax yàlla itam waaw taw tawal leen taw rek ba nga fi benn seen dëkk ci biir ñoom ñëpp ci seen dëkk yóbbu ko ba ca asamaan mu wër dëkk ko dafa dafa xarewoon kaw dafa xarewoon kaw pare suuf dafa xarewoon suuf pare kaw de noonu lañ leen xale gën ñoom waaw dëkk moo dëkk kat yi rek kul wax ak yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah jëm si yéen a ngi leen ñaan yàlla ci xale bu fi yëngu de sant yàlla nag li nga xam ne xale nañu yéefari jëkkee ndax aarabu yéefari jëkkee moo taxawee aarabu yéefari tawee wa salaamun mucc ala ibaadi aji na ëllëg jaamu yi ala ci ñu tafatal na mu gënde mooy jëm ci mboolem jaamu yàlla yi nga xam ne yàlla tam na leen ah mbaaw yàlla xeer moo gën am naa ko si góor am na da ngeen bokkaale ko yéefari jaamu këram moo jaamu yàlla gën am jaamu këram a gën xam nañ ne jaamu yàlla gën ci ñu koy jaamu rek ndax jaamu këram moom amul njëriñ bari ko amul lor yàlla nag moom ku ko jaamu mu teral la ku ko jaamu mu bugal la du ko ko ñu jaamu ko am man xalaat te bind na ma sama laaj yaa sama ni juróom yaa wala ma suñu juróom yaa waaye am xalaat sama wàcce la comme ñu leen mi ne sama yëf bi ci asamaan maa taw baan daal ñu ci faa baan bat naa kon saxal ñu jëfoo wax ak ay xeexoo saa ko bëgg ci ñu waroon saxal rek yàlla ñu leen di asamaan ak suuf wàcce leen taw bi taw bi ñu jëlee leen gàncax ci suuf parce que leen ay tool yu rafet ba noppi maa leen wóor yi bàyyi ko ca tool yooya dañ leen di dund ci meññe yi seen jur gi di dund ci mërmër mi maakaar ne ku lakkum ne am suñu dugub moom saxal sa jëlaat wala wala xam nga ne garab yi yàlla saxal pour pour yàlla mënu ko saxal de yéen mën nañoo saxal garab de ñu saxal garab yi saxal gàncax bi kooku moo yore ñu jaamu ko def keneen de ay yaaw ndax yàlla maa la aji nekk la ànd ak yàlla ndax jërëm yàlla nekk la di ànd ak yàlla maanaam déedéet parce que ñun ñoom xaw ma aw ñu dañuy yaatu dañuy dañuy bokkale yàlla de. ñoom nag dañuy bokk sakkal yàlla bokkaale de ñu keneen suñu ko xamale aman jaala ak ak bind nawu lar na suuf aman jaala ak ak bind nawu lar na suuf xaraaroo di saxuwaay yàlla ni ngeen bindal suuf def ko mu di saxuwaay nga xam ne di jaaree ngeen di ci gaal yi ci kaw géej kan moom suuf naka gaal yi rek la ci kaw géej la tegu su ko jëm mu ñëw di doon ngeen seen dund ndox mu mu samp ko ci bët yow benn téeméeri junne ci ay bët moom la sant suuf waaw ba mu taxaw du yëngatu wa jaara ba mu def xilaala ci diggante comme ci diggante seen anhaaram ay yoon mu dawal ay yoon yoo xam ne gërëm yi ñuy naan gërëm yi ñuy Misra Furaat ak waaw ak dud moom ak Dijla yàlla mi nga xam ne moo leen defar suuf parce que kooku di ak xaxuwaay mu banda bandal yoon yi ñi nga xam ndox mi ngeen di ko naan wajaana tam def laa ñëw doon rawal si ay doj mu takk daj yoo xam ne ñoom la xam sa suuf def ñëw suuf wajaana tam def bayal baax yi ci gën yaa ngi ci ak sama aji bu bëri ci kattanam géej gu neex wala géej gu naqari bi boo demee bañ ko toroo dara du ko ci ci gën mooy kattanam yàlla loolu yàlla yaa ngi géej gu weex bi du dem jaxasoo ñëpp géej gu neex bi géej gu neex bi jaxasoo ñëpp géej ga xorom nga ay daaw yéen pour maanaam ànd ak yàlla de xam ngeen ni yéen yàlla ci ànd ak yàlla nekk fi de su fekkoon ni yéen yàlla am na loolu nekk rek ba bay ak solo mu ngi bay seen laaj la wala xaw ma de waaye ñu gën a bëri ci jiite bi daal amul xam-xam de théorie adduna yëpp yàlla moo leen ko jox théorie alaakira moom kenn xëccoo ko moom kon nag ndax waroon na jaamu kenn ku dul moom teew yaa dina defal lu suuf di dëppoo yow lu rafet soo ko xoolee mu dégloo la soo ko digalee mu topp la soo xaddoo mu wattu sa gannaaw kër gu yaatu ak waruwaay bu gaaw loolu moo moo gën ci teew yaa dina nekk na ci pexe nit moo am jabar ji ñëw yoo xam ne su ko xoolee kontaan su ko digalee mu topp ndigalam su fàddoo mu wattu gannaawam la ak doom ju ci topp wajib lu ko wajibam digal mu def ko ak ay mbokk yu dëppoo yow benn wute bañ a topp diggante seen mbokk ak dëkkaloo yu ñu de li ñu dimbalante yow ci topp yàlla ak sa wërsëg nekk ci sa dëkk rek yàlla bu ñu jëfee wërsëg yi daf ko sànni rek am na ñoo seen wërsëg dafa dal ci suñu dëkk yéen di jëkk di wut ci seen wërsëg am na ñoo seen wërsëg wërsëg dafa tasaaroo ci ak ñoo si rek fu mu am nekk rek foog ñu dem ba fekk ko waaye ku sa jabar yiw sa doom nangu laa topp say mbokk d'accord a ñëw say dëkkandoo yiw sa wërsëg nekk ci sa dëkk boobu nga tax a jaar aman aman li jiwu akada nangu nangu almustaba ñaana kuñ loroloo yaakaar aw dem ñaanamu ko yàlla mi nga xam ne ku jaamam loroo di jëf ba loxo ñaan ko mooy nangu ñaan googa wala ci bu gëm yi tartat ci moom bu fekkee dafa doon musu ci tartat mu tegu ko tartat ba mais dara ko doon ñaan mu may ko doon ko doon ñaan su kooku mooy yàlla jaamu ko kooku mooy yàlla ne koo mën a nekk ci àdduna boo jàppee dellu ci sa borom def ko say loxo ñaan ko mu mu ñu na ko jàppale rek kooku mooy yàlla jaamu ko. dañuy waxtaan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa toog ne ubbi bëri na yéen duniyaakum salaasun mu ne soxla nañ ñu gisee naa dina ci yàq yëpp ani saa wër ñu bokk na ko ay ci salaat mu ne àddina jigéen ci bëgg ak dëkk ak xorom bu sedd ci julli jigéen saara saar bi ci yàlla feeñal mu di ko fàttali saara yàlla ba loolu la ko bëggee dëkk taxaw bi muy taxaw mu laaj dañuy taxaw bu neex rek lañ ko gën a mun a bu bon waaye ñun ñëpp na ne xolam bu set nag ci julli waxul ne jullee setal xolam kat dafa wax ne xol bu set laa ci julli dafay amee nit moom mooy am bu nekkee ci julli ci jokkoo boromam ak sell ak waxtoom loolu rek mooy xolam bu set jaar na yàgg yooyu la yoroon bu bëgg jaar na Abubakar ne waaye naa yaa ngi fi xaw ma bëgg leen ñun du yaakum salaasun Abubakar yi ne bëgg na yàlla nasaru ilaa man ñu sara way faaku maali alayka fajjilu su lay lay alayka mu ne moom duñu le xool xool kanamam yonent bi rek la bëgg jaar na ak toog ci kanamam ak duñu le àllam yëpp moom moom ak yooyu loolu la ci bëgg ci si yonent bi toog ci kanamam duñu le àllam ci moom de Omar na muy bëgg naa jaar na yëpp li Omar ne moom yàq yëpp la bëgg wala tu awliya illa wa muharabatu a'da illah wa iqamatu hududillah Omar ne moom la ci yóbbu ba du jaar na di dimbalante wàllu yàlla yi di xeex ak noonu yàlla yi di taxawal jëfinu yàlla yi rek Usmaan ne waaye maa bu bëri leen ñu yaatum salaasun Usmaan ne iftaaru salaam wa itaamu taam wa salaatu bi léegi wa naasu ne yaam Usmaan ne moom loolu la bëgg ter ci walat mayoo ak lele ñam ci gise guddi gannaaw bu ñu leen raye loolu la ñu ko dinaa di ne waaye maa bu bëri leen ñu yaatum salaasun الضرب بالطيب والصوم بالطيب وإكرام الضيف moom yàq yëpp la bëgg taw jaar ngeen ci yoonu yàlla ak xool ci waxtu mbooyoo ak teral gànde su mën gan la woon ak li mu ñàkk yëpp julli ne man comme bëri léegi du jaatum kalaasam julli ne moom yàq yëpp la bëgg dimbalee seen wàll yi yàlla yi lépp li ko wax yàlla ji ak xet li ay miskin def Jibril fàttu dellu fi te yàlla yi dinañ ko gën a yàq yéen su dee ca waxtaan la yàlla. waaw ba mu dekkal ko di leen tudd ngeen borom ak nangu ñu wax loolu itam xam nañ ne loo xam la ndax fa tegtal yi tegtale na ko ba taxaw na wala nekk ko mu ak dana mu war sa dana ñu asamaan yi duggee ci asamaan wala nekk suuf ak ci war sa dana. taw bi bàyyi ko ci kaw ak gàncax bi bàyyi ko ci suuf de ay laalam déet buur maa laay ànd ak yàlla de nga xam keneen ku jox loolu dul moom de boole kenn wa kenn xëyut ak jaamul mooy moom bu loo xam aatoo indi leen burhanakum lay seen in kuntum dem rek ñeen sadak na ñëwee dëggal de indi leen seen i lay nag yéen de yàlla moom wax ne layam yéen ñu wax ne yàlla jëlee na ngi fi nag indi leen lay ñu tëri amul lay de moom rek a def li nga xam ne tudd tuddoon nañ ko kon nag moom rek xëy ñu jaamu ko de ku dul moom bindul dara kon nag ku dul moom yow sax jaamu de ñu ne ko sonal nga ñu wax ñu kañ kañ jëm yàlla taxaw mu ne ko waxal laa yaaramu xam ci man ci samawaat ñenn ci asamaan juróom yaar wala les suuf juróom yaar ci malaayika ci doomu aadama alxayba faddu di leen laawan dara yàlla wa maa yas'uruuna xam te ñu ayyaana yub'asuuna waxtu wa def na dekkal leen de mboolem mbindeef yàlla yépp ñu ne ci asamaan ak suuf kenn xamul ci xay bu googu ñuy laaj lu mooy yàlla rek rek waaye xay la nit ñi dekki foofu yàlla rek ko xam de xay bu juróomi xay bu la benn xay bu bi kenn xamu ko lu mooy yàlla de xay bu goo xam ne fàddu na la yow jaam bi waaye mi ngi ci kaw suuf boo ko xàgg ca jàppañ na la nit ki nit ku la fàddu wala dëkk bu la fàddu ndakaaru fi nekk xay bu la ci yow waaye mën ngaa dugg ci oto yi léegi balaa ngoon a jot nga janoog ndakaaru boobu xay bu moom ñu nga ko sabab mooy xay bu gu nekk ci suufu màkkaan la sori mën ngaa dugg aw yoon léegi ba janoog moom loolu mooy xay bu goo xam ne xay bu gu nekk ci kaw suuf te nga nga xàgg ca jàppañ na la de ak xay bu gu nekk ci asamaan ba tey jàppal na ci xàgg ci jàppal na la li ci xam-xam yi aju ci asamaan xam-xam biddiw yëf yëf yi kooku soo ko xamloo rek réeroon na la waaye yaa ngi koy xamloo daal di ko xam yooyu yaari xay bu jàppal na jaam bi mu àgg ca ak xay bu gën a ci asamaan ak suuf te jaam bi mën naa ba dee ba àgg ca mooy li yàlla nëbb mbooti wéetam ak xamam mi ngi ko nëbb ci sa jëmm ji yow nit ki ak ci asamaan ak suuf xamuloo ko waaye mën ngaa soobu te yàlla wuññi lëkkiraay nga gis li yàlla denc ci yow ci mbooti tawhidam ak mbooti xam-xamam ak lim denc ci asamaan ak suuf sanurihim ayatina fil afaaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq boobu xay bu itam man nga caa dem waaye gannaaw jihaad ak soobu de ak àndaaleeg sëriñ bu mag foofu xay bu ñetteel baago ak beneen boo xam ne ñu ngi ci asamaan ak suuf yàlla rek a ko jagoo moom rek a mën a àggale jaam bi ci xam ko mooy xay bu bi nekk ci tudd yàlla yi wa allama aadama al asmaa kullaha summa radahum al malaa'ikati fa qaala anbi'uunii bi asmaa'i haa'ulaa'i xaaral subhaanaka laa ilma lanaa illaa maa 'allamtanaa ba mu ko xamalee Adama lu mu wax alam aqul lakum annii a'lamu ghayba samaawaati wal ardi ay bu nga xam ne min ci tur yàlla yi li yàlla denc ci asxaar na ci turam yi loolu yàlla rek jagoo boobu xam-xam xamal na ko Adama te malaaka yi xamuñ ko looloo tax Adama gën malaaka yi looloo tegtal ci ne Adama moo gën malaaka yi rek ndax xam na ay bu bi nekk ci tur yàlla yi te ñoom malaayika yi ñu nëbb nañ leen ko def loolaa ko may xilaafa ak beneen xay bu boo xam ne yàlla rek ko jagoo ak yonent bu mu ko jagle alimul xaybi fala yuzhiru ala xaybihi ahadan illaa man irtadaa min rasuulin xaybu bi nga xam nag ne mu nga ca wàlla waa xam-xami yàlla yi aarif yi amoon ci seen tarbiya kooku moom mu ne jagle na ko yonent yi def yooyu xaybu yëpp doomu aadama yi ak mbindeef yi àgg nañ ca benn xaybu boo xam nag ne yàlla rek ko jagoo kenn du ko xam mooy kañ la pencam yàlla taxaw de xaajab juróomeelu boobu rek la yàlla jagoo alimul xaybi yàlla mooy aji xam pencam yàlla ku laa yàlla moom xam ci man ci sama ñeneen ci asamaan juróom wala nekk ci juróom yaar al xayba fàttu gaa moom pencam yàlla ila la ndax yàlla bu ma yees la waaye xam ñu mukk ayaam yi ma soxla waxtu def na dekkal leen de ban bayit it daanaka moom bi laaxira fi ba bu jafe fi lay doon firi ko firi ko de ban bayit it daanaka moom bi laaxira fi réere nañu alaaxira de mboolem bi def yépp réere nañu alaaxira kañ lay ñëw ci xeeri jaam yi nga xam ne jumla ji yëpp mooy ànd ñu taal ko benn firi bari daanaka moom bi laaxira fi ak soxita fi ay diim ak barab naa ala asaanihim waaw yooyu ñooy xeeri jaam yi nga xam ne waaw jumla ji yëpp benn baat la bari daanaka moom bi laaxira fi réere nañu alaaxira rek ban bay lu ñoom ci sa way nekk lañ ci sikk rek minaa ci moom ban bay um ñoom xamoon way si maxraj minaa ci minaa ci alaaxira rek waxaala wax na la see ñaa ñekk farawen nañu di ree di dekki ay saa ku naa ndem nekk nañ turaaban di suuf wa abaaw naa ak bàyyi sunu ay naana ka nun la mu rajoona ñu génn lañu ñu tukki gis ñuy bàmmeeral suñ dee ba sunu yàlla mën nañoo dekkale suñu ñu del nekk ci nit laqad woy naa ñu dee dee def nanu asaa ji la dekki naa nun waa abaaw naa ak bàyyi sunu rek te suñuy maam ba tey ñuy wax dekki waaye daal gisaguñu dekki ñun xamul jël jëkk dinaa saa dee di dee laa saa si la la dee bari naa imaam dekki waaw waaye dekki du dëgg ay nari maam la ñu fekk rek waaye ku dee ba sunu kenn mënatu ko dekkal de bul waxal biiroo dox leen di lam ci suuf kon su root leen kay fa kal na kay ne kaa ko bëtul mu jiri na mu de way wet ñaa laa xale de na nga dox ci suuf na ko seet ñi ko doon weddi bu jëkk lu doon seen ak muj de seen ak muj mooy xalaku nañ de ñu koy weddi tay itam di dee ko parale lañu lañu xalaku de walla tax fan bul jàpp xale yi ñoom walla tax kun bul na ko de seen bisi ñu may am kuru na ko de ñu fexe ko de loolu def loolu yeneen tubi de fexe yi lay fexeel yépp bu ko faale bu ko geesu bu nit ki ba sax seen nit man yàlla maa lay dimbali ci ñoom de ñoom nag fa yàgg yàgg lañu xalaku de fa yàqoo ñoom danañu wax ma tax fan waa doon a kañ bi de dëgër ciy dekk dem nekk ñoom sax ñu naan waaye kañ jëm yàlla bi Muhammad di wax nekkee dëgg la kañ la kañ lay ñëw pour waxal afa attan na yàlla an yàkkoona bu nekkar afa attan na an yàkkoona bu nekkar di fa jege na la kum ñee leen baabu la fii lenn laa la toog faa jinoon da ngeen yàkkam di ko de ndax am yéen a ngi yàkkam ci mbugal waaye man naa am sax am na ci lu jege ci yéen de mooy xare Badar ba nga xam ne danañ leen waaye ñoom ñëpp te ku dee sa sa kañ jëm yàlla taxaw na yow kañ jëm yàlla ñett la bu ndaw ak bu digg bu mag bu ndaw bi mooy sa dee ku dee rek sa pénjam yàlla taxaw ku dee sa aduna tukki na ñu dund yow jeexal nga ñu digg doom bi mooy bi ñëpp dee bu mag ba nag mooy bu ñu dekkalee ñëpp dee way nga rafet naka borom fan fan li borom gënee la arna ci nit ñi bay yéexee mbugal mi wala ci nañ dina sa sama gën ko bëri gën laa sama ko dina sa wala yàlla yéexee gi yàlla yéexee mbugal mi day xam ne ku bëgg a tuub mën naa tuub loolu yow ma nga la ci yàlla waaye effort makka ñoom réer nañ loolu de way na rabaka naka borom sala yàlla mu gën a mu xam maa tukkinu dana nëbb ko su dóoru may xol seen yàlla xam na li jaam bi nëbb ci xolam te seeyelu ko wa maa yu naa la dañuy feeñal ko ci seen lamiñ de wa maa min xaa'ibatin déer aji faddu ci sama ja asamaan wala te suuf illaa fi kitaabin dara aji nekk la ci téere mu bind bu dee aji bitt mooy law yi ma foofu amul dara lu faddu taaj du taaj njigéenal taaj waaw bala xaal la ci day wax ne fulaan kattaabatun te fekk na du taay jigéen baaxal la waaw mooy taaj yi de lépp lu fadd ci asamaan ak suuf lu mu mën a doon ñoo ngi ko bind ci lawil mahfuz ñu ne xaaral quraan naka jilaa quraan yaqussu dana mu solo ala bani israila ci bani israila ñu jamonoon teg yonent ba ak sara la bii gën ci bëri daal am ñoom ndax bay xam nga danañ wute ci ci moom xam nga alxuraan dafay nettali xisa yi dëkk ñu ñoom jàngoon nañ téere yi jëkkee ba am na ci xisa yoo xam ne am na ci luñ xamoon am na ci luñ lëntoon daanañ cee werante te alxuraan ñëwee nag moom leeral ko ca kanam nga xam ne noonu la tabeewoon de ñoom ñu ñu jëriñoo ko way na wana kam alxuraan law dan aji jubal la su ko jigle wala watul te yermande ji moom ñu ñaan way lu ñu def ndax ñoo koy jagoo inna rabbaka naka borom sa yàq di dana mu àtte bay na mu digal seen ca pencam yàlla naka ku dul ñoom de mbindeef yëpp yàlla dana leen àtte pencam yàlla yokku mi ca maandoom ga rek daa àtte bu maand lay àtte seen diggante du du yokk ñaaw te fi kenn du wàññi fi kenn de woowa moom alxasiisu moom a aji nat ci nguuram alxalimu moom a aji xam de fa tawakkal dëhërul yow yonent bi alallahi ci yàlla na nga sukkandiku rek yow ci sa borom di nekk nag yow al xaq yaa ngi nekk nga ji dëgg al mu biine gëri aji bidde yow yaa ci dëgg bu hóor soo yow sukkandiku ci yàlla de oo xaram daal na mujj ak mujj yow la ñu yàlla yow la yàlla dimbale ndax yaa nekk ci dëgg de dal di léer léebal xéefar yi di nekk raka yow laa tus moo dégguloo te am naw taaway dee xéefar ab niiw la jaay léer mu ngay dund itam ab niiw la rek ku xam bu dee itam mu ngay dund ñoom ñu ngi nii taxaw di dama ko dikk waaye ay niw lañ mën la mën la leen a dégg loole jëmmi doomu aadama su coroo génnee jëmm ja yàqu na ku gën a baax ci moom mooy kay dem robi ko de balaa nëb faxe ci suñ kanam de waaye su dee soo ko waccoon balaa ñetti fan rek mu soppeeku dëkk waaw ak ay sax di ko coxti coxte kooku ku baax ci moom kay dem rek tuuri ko ci suuf si ko balaa looloo seen ci moom su fekkee nag ni roxoo nga ca soxel ne ku ji muy soppaniku soppaniku dox mooy ku ji ne jàpp am na roxoo tax mu xel xel mooy jubal nit ba mu xam li mu war a def ak li mu war a bàyyi ak li mu war a wax ak li mu bañ a wax su fekkee nit jëmmi nit ci roxo dugg na ci rek soxel ne ku ji kooku moo di dox lu ca gën moom it dem jéng rek lu ca xel duggee rek xel ma moo koy jubal xel mi itam soo xamee ne xam yàlla nekku ca moom itam mi ngi mel ni kaw muñ suur rek mu réere su ci xam yàlla nekkee nag mu soog a nekk nit ku mat de moo tax xam yàlla mooy roxo roxo roxo ñi nga xam ñi nga xam nag ne wéet nañ ci roxo yooyu yëpp wéet nañ ci roxo xam yàlla wéet nañ ci roxo xel wéet nañ ci roxo dund dunduñ sax ay niw lañ moo tax yàlla tuddi leen ay niw de wala su ma dégg dina su ma way tax dama wate ku tax man la ko wow mukk ba mu dégg li ngay wax waaw ndaw dem des nañu bët gi leen li ñu jóge daf def sax bu la xasee jox gannaaw mën ngaa soo soo soo soo wam dégg rek wa ma am sa jër yow yaa dina am yi nga yaa ji jubal way way bóom ambalaa si mooy seen réer seen de misil maxa mën na leen a jubal de sa mooy yéefari de il faut que ma dégg ngay dégg lool laa ma nuyoo ñu nga rek dana mu gëm jaay naa ci alxuraan moom comme ñoom muslimoon a way sànq la ñu wéetal de mën laa dégg lool mukk lu ñu fa ndax dox dox la dox la si ma xalaat niiw la koo mën a déggal mooy ku gëm ku gëm yàlla nag kooku mooy ki nga xam ne mën naa mën naa mën naa wéetal mën naa sellal wéetal wéetal yàlla de moo tax si maxa bi ñàkk ay bët si maxa ci xol la nekk dafa innahaa laa ta'mal absaar walaakin ta'mal quluub allatii fii suduur wa izaa waqa'a bil kaafiriina al qawlu baatam mbugal ba alayhim ci ñoom nag bés boo xamee ne yàlla waa bëgg naa waa indi soppeeku bu mag rek ci àdduna si nga xam ne lan la moon ci yéefar yi bëgg na koo teewal axrajnaa nu génne lahum ñu leen dabbatan dabba ñu ne lan gi tukki gi suuf tukki nu mu njëkk noonu waxee leen ne balaa àdduna tukki daaba dana génn mooy doomi gëlëm ak saa yu gañ la doon waaw dana génn di wax ak nit ñi wax yaram yi sax rek mooy yëgle ne tëj nañ bunta tuubee ku tuubagutoon ba léegi waaw sooy ba bul tuub yàlla dootu nangu tuub gannaaw fay waaw yàlla nga ubbi bunta tuub ma nga jafe jant bay sooye ba bu set waaw ma nga naa ko bëgg a tuub na tuub waaw feeg jaam yaa ngi tuub rek feeg ñu dem ci bunta boobu ku tuub yàlla nangu la tuub boo xamee yàlla bëgg naa tuub dina nag ñu tëj bunta tuub jërëm ak saali wóor bu mooy wóor caa dina fi yëgle ko ñu tëj nañ bunta tuub ku ku tuubutoon ba léegi waaye ba wul tuubati yàlla dootu nangu tuub inna naa fa naka yeefaru màkka kaanu ne ko nañu laa wóolu diñu bayaat naa ci alquran sunu de yeefaru màkka gëmuñu woon alquran ndax gëmuñu dekki gëmuñu hisaab gëmuñu bugalam yàlla moo tax de bu keroogee nag ñu welam de parce que jàngata yow naa sulu des ba dana fang ñu tudd ma jum ñu ko xeet xaw gën mbooloo ñu ni kër bu jëkk dana mu weddi bayaat naa ci kaw des na bés bés jam yàlla nag bañ yàlla dekkal jaam nag xeet bu nekk sang leen doon réeral ñu njëkk leen indi boobu ñoom yoo saxoon waaw def na boole leen de ñu boole leen seen njël beneen seen ñëpp ñoom ña leen doon topp sang yaa seen way suufee ñu boole leen màng leen day dugal leen safara après ça jaaroo ba dem di gën nañu barab tey jëm yàlla xaala wax yàlla parce que daf tuuti di ngeen yonent suma yàlla def dafa yonent yi bi aat ci kaw te sama yonent yi dootal yëngu leen bi aat ci ma ngeen mën ci xam-xam di gën doon weddi lu ngeen xamul amma saa kuntum amma saa ana lan laa kuntum ngeen nekkoon taamara doon jëf ko de lan ngeen doon jëf nag te lañ leen digaloon wa waqaata tabbi alxawru baatab mbugal baa leen ci ñoom bi masala moo ci kaw fi bakkaari seen ngaa yàlla de su ko defee baatam mbugal ba kii laam laa na jaanoo dal di tabbi ci ñoom te fekk ñoo ko def boobu ñoom laa ante kon a wax ci ñu de kenn amu ci walaay nag wooy wax wetam dañuy def de dañ dugal leen safara de alam yaraw ndax gisuñu am naa naka nun jaan naa bind nanu lay la guddi léegi su noonu dañu noppalu fii ci moom li yàlla leen bindal guddi gi ngeen di noppaloo wanaara bëccëg mu këram yaa ji gis loo mu def bëccëg mu leen gis lool ba ngeen mën a soppandiku ci seen aajo inna fi zalika naka ji nekk la ji lool de waaye di kat yi kat kat la buur kon ñu raw ñu juróom ñu juróom ñu gëm de jafe na aw tuut ndax ñoo koy jëriñoo ku jël wéesal ñoom duñ ko jëriñoo de wayoo ma leen foofu bés ba def na wan ci sóori jëfuk sëwa bés ba nga xamee nag ne yàlla façonaa jeexal àddina nag mu ne israfil walal buf te dina ñëpp dee tey ba fasian fa dee man ci sama waat yi ñu nekk ci asamaan juróomi weer man ci loolu ñu nekk ci suuf juróomi weer bu wëree bukk ba rek bukk la waaw ab day jënd boo xam ne yàlla na ko bind sàkkal koy gën gën yoo xam ak ay mbindee yi ba yàlla bindee Israfil ba tey noonu la ñu ko déjën ba rek di déglu ñu ne ko walal bés ñu ko ne walal bukk dina teel a day jeex mu wal ko waaw ñëpp dee àndoo rek asamaan ak suuf ñu ko wal ñu suuf ñëpp dee àndoo benn yoon. illaa man saa na rek soob na ko laaw yàlla rek. lu may yàlla soob ñoom rek ay ñàkk bee boo amee wala mbukk ba de ñi yàlla soob ñu ne ñam la ñu ne way sëy yi nga xam ne yàlla na ne ayaaw nga ab yi ñu ne wóorul xëy nii yi nga xam ne ak bëkk na yi nga xam ne ñu jaam jane ñoom duñ ñoom duñ dee ñu ne jibril la ñu gaa yi israfil ak malakul mawti waaw ñoom la yàlla na ma de jibril mooy moom la yàlla wóolu ci woyu gi Mikaayil moom la yàlla dénk wërsëg mboolem mbindeef malakul mawt bi mooy faat rox ku bëgg ku ku ku ku digam jeex Israafil nag moom mooy wal bukk bi àdduna tukki gannaaw ñeneen fukk mu walaat ko ñëpp a def bés bu yàlla bëggee dugg àdduna mais Israafil da wal bukk bi de mu wal bukk bi ñëpp dee lu may yàlla soob mooy ñoom yonent kilifa malaaka yi Jibril Mikaayil Israafil ak malakul mawti de bu ko defee yàlla dañu ne malakul mawti yow laa wax ci loolu roxo yi ñu nga di leen xaar ana ku def mu ne ko mbooleem ñu asamaan ak ñu suuf ñëpp deeran de lu mooy Jibril ak Mikaayil ak Israafil ak jaam bu dox di ak jëmm bi tedd ji de mu ne kon doxal roor mi kaay wërsëg yi mu def yi laa ko dénkoon dem bi def ñuy wërsëgal defat bi malakul mawti daal di nga roor mi kaay ku def léegi jibril moo fi def ak israfil ak jàmp doole ngay jëm a ji ko tëjee mu ne ndogal roor israfil mu ndox roor israfil la ku def jàmp doole jibril ak jàmp doole di rek ak jëmu du mag yi mu ne ndogal roor jibril mu ndox roor jibril la ku def léegi day tënk si biir lu may jàmp doole ngay jëm a ji ko tëjee mu ne ko léegi daal man damay dund te duma dee mukk de mu ne mu seet ndax desul wër asamaan ak suuf lamb géej yooyu yëpp dellu si du gis dara day noppi waaw su ko defee yàlla ne ko dee mu dee rek ñoom ñaan te ñooñu ñooy mujj dee te ñooy jëkk dee gannaaw ay saa ñu dekkalaa leen de kullum képp ci mbindeef yi aatoo dikkal lañ yàlla daa xëy na mbir mu ndee tooxal de dara mboolem mbindeef yëpp daañu teew fi seen kanam borom waaw te di ko tooxal de wasaraa ji sànga al jibaala doj yi parce que waa danga jàpp leen jaam yi tamit dooy taxaw waaye yéen ñoom tamur dinañu ngay maral saa bi seen weer nii de doj yi sax dañ leen di fang ñu jëm kër jëm yàlla da nga seen doj yu rëy ngay dox dox bu gaaw waaye rëyaayam doj yi dafa tax nga def ne ndax sax dañoo taxaw fekk ñu ngay wéy nii aw nit ñi ne fu muy dem leen su noonu laay jëfi yàlla lëfi yàlla bi nga xam ne ak xanaa xarañe na mu ko lëfee lépp lëf de loolu mooy jëfi yàlla ki nga xam ne lépp lëf moo ko xarañe dina war a nekk moom abdoulaye xam na moom ñoo tax na ñu def ko man jaa ak di gërëm di xasanati ilaa ilaa illallah loolu la ko jaal firee képp kay jëm yàlla wala wala ñu naan xayrun ab yoon ñu naan ko fekk moom de képp koo xam ne tey jiwoon na baata laa ilaa illallah yàlla dana ko jox yoon waaw loola nga xam ne moom la jëfoon de moo tax de lu gën a mag mooy xasanati ñu firee ko fi wu mën a doon nga xam ne. laa ilaaha illallaah moom yëpp ci wu jaam mën a def yàlla dina ko fay te benn bu nekk fukk la ko yàlla fayee naka la dayoo ja saaru la saaru dana am man jaa bil hasanati falahu ashru amsaalihaa yàlla benn fukk la koy fay yàlla dindi jaam bi jaam bu gëm yàlla nag su fekkee ni hitti naa def lu bon te defu ko yàlla du ko ko bindal de suñu tee def lu bon def ko ñu bind ko benn yoon gannaaw boo xamee ne malaaka mi wattu jaam bi raqib ak atid raqib mooy buur bi mooy bind yiw yi atid mooy bind safaani we te raqib ci ci lay yoroon jaam bi mooy kilifam ci ci jamono su defee ñaaw te mu ne ko mu yël ko ba xam nga ne balu dana tuubam dee su baloo yàlla fee juróom benn waxtu duñu ko bind su fekkee am na juróom benn waxtu bind ko nag mu ne ko bind ko benn yoon suñu suñu waxtu day fàggan suñu teewoo hiw te defu ko ñu bindal ko ne def na ko suñu teewoo aw hiw def ko benn yoon ñu bindal ko ne def na ko fukki yoon moo tax ñu doon fi ne toskare ñeel na koo xam ne fàggan na ba ay fukk fukkam hëpp ay genn bennam de wowum ñoom way dikke ñu hiw yow may suñu bésab keroog ci pencam yàlla aami na loolu lañu ñun façon yi ci de ñoom wowum ñoom am na wóor wóor lañu ñun façon yow may diñ ci tiitam defar keroog de ñoom daañu wóolu keroog te ñëpp yi jàpp ñoom di ñi nga xam ne dikki woon nañu waa aw yiw mooy cël-cël yi gëm yàlla yëpp juróom-ñaar fukk lañu ak juróom-ñaar laa ilaha illallah muhammad rasulullah moo ci gën a kawe indi lor gi nekk ci yoon yu ay jullit di jaar moo ci gën a tuuti rek waaye ñu woo mën a dikke dañ tam yàlla yàlla dana la jox payam de te ñoom dañu wóoru dañu ñuy jàqale ba man jaa ko dikke noonu ak dikke yéen ci bokkaale ba ku ba def na dëpp bu jëwum ay xar kanam dem ci neeri ja safara de ña nga xam ne ne dañ doon sakkal yàlla bokkaale dañ leen di joñ yàlla ne indi leen ma jàlla la boo xam ne waaw juróom ñaar ci xaram lay doon ci xaramul malaaka ñu xeew ko jabam ne moom te fekkee loxo yaa tànke sax ko ñu doxal xar kanam bu jëm safara de ak di sama def fay leen ila ma kuntum la def fay la ngeen nekkoon te amaloon doon jëf rek yàlla na ko kenn ku nekk fayal ko jëf ngeen nekkoon te amaloon doon jëf rek yàlla na ko kenn ku nekk fayal ko jëfam dama umetu naka ci gën def na ma maa ngi doon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam an abuda moo jaamu ala baasi balati borom bi la dëkk fii Makka dëkk borom ba nga xam ne arama arama na mu ko def mu ne maa ngi ma digal gi digal nag ma ne naa jaamu yàlla mi nga xam ne mooy borom makka te mooy ci ko xaramaloon de moo ko xaramal def ko xurum joo xam ne ku dugg Makka daal xam nga kóllëre duñ fa tuur dara ci nit ku fa tasoon ak ku rey sa bàyyi doo ko gaar na duñ fa tooñ kenn duñ rëbb rabam ya duñ tagg nga xam ma kooku xéewal la koo xam ne yàlla ko jaglewoon ñooñ Makka rek ci Quraysh fitna yi ci àddina si yépp Makka moom am na ca kóllëre fitna du fa dugg dajjaal du fa dugg yaa ñu daal maa ñu jot ñu fa dugg mu ne yàlla na ne ma naa jaamu borom dëkk boobu de na ne makka yàlla ko xaraamal de doom bi de asamaan juróom yaara suufi juróom yaara xaraamal Ibrahima fekkoon ne yàlla xaraamal ko xeesal rek la kenn sañ nga fekk xale jëm makka yonent rek lañ ko xaraamaloon benn waxtu gannaaw ba ñu yëkkati ko mu doon nekkati xorum ba koy jëm yàlla wala woon ñaan na ko moom yàlla moomu kullu seen lépp lëf de te yàlla muy borom makka loolu dafay teraange ci makka waaye yàllaay borom lépp la ndax lu nekk moo ko bind moo ko moom wa umetu digaleef na ma naa ko nag moo nekkat noonu mu suñu damay jëfandikoo digal nañ ma itam naa jëflu yàlla de nangul ko wéetal bu wéetam de mooy laa ilaaha illallaa muhammadu rasuulullaah waaye na adlu ak ma jàngat alquran alquran de digal na ma itam ne naa jàng alquran ci yéen de yàq yëpp moom la yàlla tëralal yonentam nay jaamu yàlla sakkan bañ ko sakkan bokkaale dana ànd ak jullit ñi lépp lu jullit ñi nekk na ci nekk te nay jàng alxuraan la alxuraan jàng ko jaamu yàlla la waxuma xam-xam buñ ci jële waaye ak jaamu yàlla dañ ci am yoon yonent na ne boo jàngee wenn xaraf ci alxuraan am fukki nii yoo xam ne wenn wu ci nekk moo ëpp àddina te duma leen wax kat ne alif laam miim xaraf la dama leen di wax ne alif xaraf la laam xaraf la miim xaraf la soo jàng alxuraan xaraf nga xaraf woo konte woo weesu yàlla bind na la ci fukki nii yoo xam ne benn bu ne ëpp àddina ngi ci biiram te lii bi ci àddina rek la nit ñi kër kër far ba far te jàng alxuraan jàng alxuraan nag am nay teg yéen na nga laaj sooy jàng alxuraan nga di ko jàng di teewlu maanaam yi ci nekk di setantal jàpp ne wax yàlla ngay wax kon yàlla ngay waxal yaa ngi mel yaa ngi waxtaan ak yàlla moo tax doo wax ak keneen feeg yaa ngi koy jàng sooy jàng alxuraan ni waxee la nga tontu ko yàlla na la foo jëm koy sotti sa kanam jëme gannaaw boo xamee ne man mu tedd nii man ngay waxal lu tax ngay dox doo wax di wax ak keneen lu adab te itam bëgg nañ nga jàng ci ko ci kaamil bi lépp loolu ndax ñi nga xam ne lami ñuy jàng gi ak jaamu yàlla ci moom bët bi xool gi muy xool alxuraan bi jaamu yàlla ci moom nopp bi dégg gi muy dégg jaamu yàlla ci moom loxo bi wala bëti kay yi loolu jaamu yàlla ci moom soo soobee tànk kaamil ba nga fay ko teg ko ci say tànk tànk yi itam loolu jaamu yàlla ci moom rek yow yaa ngi am sa jaamu yàlla ñu lay déglu itam lu dañu li nga xam ne ñu am de li la xoyal xool fa tamit loolu waan si loolu daal akum turxamoo moo tax yàlla digal yonent bi nay jàng alxuraan de alxuraan ak hadith li ci nekk wayu la ko yàlla wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye jàng alxuraan moom jaamu yàlla la hadith nag moom jàng ko sakku xam-xam rek la moom foo di dajiwuñ ci ne jàng ko taxabut la alxuraan nag moom jàng ko taxabut la doon muy muy xam-xam rek noonu lislaam yi xam nañ ne alxuraan ay sirru lislaam moo tax ñu xeex ak alxuraan ci mboolem jàng yëpp ba léegi amul benn jàng boo xam ne dana gone dana fa jàng ba watta alxuraan atta xaayara ñaari julli lañuy jàng ci alxuraan dem di jàng yeneen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun te loolu yëpp waa yeneen ko tëral not leen ci jàng yëpp jàng wattuloo alxuraan amatu ci ndax fekk na taxaw ci tambar la diggante jëm ca London yëkkati kaamil ñu téere jële ak Kaaba gale ca Makka yaar yi feeg ñun ci àddina ñun du ñu am mukk ci salu jaar yi nañ xeex ak yaar yi de ci lépp nañ am ci doole kattan noonu bi xam ne li suñ sërlu ñu ngi wax ne xale bu nekk balaa def dara watu alxuraan xale bu watu alxuraan moo tax léegi bu gënee ñëpp réere alxuraan bu xale yaa ngi ñeenti at dugg lekkool di jàng xam-xam yoo xam njëriñ du wattu alxuraan ci lu lislaam rek lay defee bu màggee du xam sax ne alxuraan wàcc na du xam lu sariya du lislaam tëral kooku la mën a réeral mooy yaa léegi man sariya bi jub na tey ma yaakaar dina ko dana mu jub dina fi ñaan boppam rek ku jub nag te yàlla mu jub yaa ko moom moom bala ku réer noonu waxuloo xarit na ma ana naka man man mun si naa ji nekk laa jafe waaye dañu rek jafal rek moo war waxul waxal alhamdulilah jël si yorante billahi ñaan yàlla léegi yi ko moom xam na ma wan leen ayaat yi ay mandargaam fa taarifa na fa taarifa na abara ngeen xam ko rek yàlla dina leen wan mandarga yi kattanam ak ak wéetam ba ngeen xam ko rek wan na leen ko keroog xarit ba dara ba ngeen jàppee rek waaye rey seen fan yëpp maa ngi jàpp leen malaaka yi feeñ leen di leen dóor ba dee yu ñuul seen fakkaram seen i dugub rek gaa yi ñu dem safara ba maanaam bu ko dee borom sa saa bi mun a yëg sa gànnaaw ma xam ne daf leen di yéexee rek waaw ba ca waxtu ko soob waaye du nee na mukk yàlla loo mën a def defee ndax gisu ko gis na ko rek soo defee bàkkaar dal leex rek nga defee ndax daf ko neex daf lay jëy rek waaye yàlla moom xam ne kenn mënu ko rëcc kenn mënu ko raw moo tax dana leen yéexee waaye daal dana yàgg yàgg ci yéen la jëm ci rek